waaw ça fait plaisir parce que tamit defuñu fi loo xam ne war nañu mën a tuddee bés bu mag bi moo tax a ah, ah, mënuma sax wax quoi dama dama kontaan parce que tamit war nañ ni ñoom tamit ay doomu Medina lañ bu ñu gisee doomu Medina buy liggéey dañ ciy teg loxo c'est juste ça moo tax ñoom tamit ñu tuddee ma drapeau ma leen di remercier di remercier Babacar di remercier Amdi di remercier Papa Ndaw ak Baba Diaw mi nga xam ne ñoom ñoo jël initiative bi def ah, tuddee El Hadj Keita pour une première. waaw c'est hélas xale la dëgg si maintenant bi nangoo liggéey damay dégg doon góor yàlla moo doon ñu am yëg-yëg bi pour tuddee ko drapeau bi tey fekk xaalis dañ dem séntu am na ñeneen ñoo xam mën mën nañ ko tuddee hélas mm-hmm. doomu maintenant la te man dama gëm ni ni soo deggee doo maintenant wane ko man dama gëm ne am nga am nañ droit pour jàppale la mm-hmm. kii xale la nañ ko doolal yokk ko fit am nga teg si yoon bu baax groupe Tete pare nañ man sama sen sa orchestre bi lañuy tek ñamal gaay ñaari som wala ba ñet mbeuri sogu seug ma la wax lolu seng seng mom waxuma la paré ndax suñu ma gisé ma tax xamné man paré na wa iska family no paré nañ xali jigen ni paré nañ iska xam ni ela juk ma juk la ni xaar ma la wax lolu am production do do ko dole de jam ko nak di ci wo di ci wo abou gey cheri cheri fay mom di ci wo mam jaay ah cheri mbey gey fay ah. ndax bes bu ma ñor la te bes bi dama ci wo yousou dial di ci wo paté ndoy ba di ci wo cheikh ba di ci wo kep ki nga xamni yag na jappalé elage keita di ci wo monsieur le maire bamba fall di ci wo seydou gey di ci wo pap abdoulaye sek di ci wo maymounou ndoy sek di ci wo képp ku dëkk medina autorité yi dëkk medina parce que ñun ay ndaw lañ te maanaam waruñu parparloo maanaam yéenay suñu jiit yéen ñëpp la ñu fonk yéen ñëpp lañu bëgg kon bés ba yéen a ko moom askan bi yëpp nañ ñëw dooleel ma ñu yëngal stade yëngal ko ay ca Baba Diaw am ndam Thiam Production am ndam